monsieur le préfet installé ngeen ñu en tant que maire de Ziguinchor du bànneex bu ci yéeg su dee mujjee ñàkkit li waral loolu mooy lii nga xam ne moom la ñu suñu bopp ci sas moo ëpp doole foofu te ku xam lan mooy pal ndax bëri na ñuy xëccoo palu nañ ma fal nañ ma fal waaye palu responsabilité bu rëy rëy la diine boo dem nag wax na ci responsabilité la ci ñi nga jiite kenn ku ne ci ñoom bés dina taxaw nga war a moom ci lim la wóoloon ba dégg la waaye responsabilité la ñun ñi ñëpp ay nit ñu gëm lañu ci suñu kanamu borom moo tax duñu tuuti moo tax nit bu xam luy fal dëgg buñ la falee parce que foofu la problème bi commencé ma wax ko pour man nag mais ma wax ko aussi pour képp kuy conseil ak képp ku am responsabilité li ñuy xaar bu Mumbaay du séddoo ay avantage waaye liggéey bu bëri bëri jaamu yàlla la parce que askan gi la wóolu waru laa gën a jaamu yàlla la parce que loo di nga gis njëriñ bi fii wala di nga gis njëriñ bi fële